lu am solo sax si nit ñaa ñi euh, bëgg a dee xiif googu rek xam naa rek ci laay euh, dugalee rek beneen euh, waxtaan wi nga xamante ni moom laay door ci lu jëm ci wàllub couvre-feu ndax oustaz nag gis nañu ne daal 21h bu jotee askan wi dañuy am xët-xët am tiitaange ku ci nekk di am nooy def ngir mën a dem sa kër ñu gis ni embouteillage dafay am ba teewul nit yi sax dañuy mujjee wàcc oto yi di daw ngir rek di daw li nga xamante ni moo di couvre-feu bi loo jàngatee couvre-feu bi. jaru ko am na benn neex na ma torop torop torop torop dañ may yónnee vidéo Mansour Ngom bu Fatick moo ma ko yónnee mu ngi jàpp benn waay bu ñàkk sago waay mu ne ko defal ndànk bul tiit looy tiit mu ne ko damaa jabet waaw eh, cere laa doon jëndi nangam nangam nangam mu ne ko defal ndànk yow bagaas nga yeb te oto bagaas kenn du ko téye dañ koy bàyyi mu dem defal ndànk rek mu ne waaw man ke dama jënd jabe laa sax cere laa doon jëndi xaw ma ban koñ nangam mu ne ko foo dëkk mu ne ko xaw ma xaw ma Kébémer ah mu ne ko ak ah, Kébémer ba fii mu ne ko déedéet xam nga man damay livrer ay nen fii dugg na fii génn gendarme bi nan ko gendarme bi toog mu yàgg mu ne kii nag cas pire la <laughs> ma ne ko wallaahi xamoo ci daal gendarme bi ci boppam daa tiit ba ne ah, kii de cas pire la nag ma ne ko xamoo ci dara sax waaja naan wajar wajar dafa tiit mais li ma bëgg xam mooy nañu bàyyi nit ñi ak seen sago dem yombul oto yombul ku mënul am oto na dox def ak sagoom ñi ñuy yebal muy gendarme muy policier yi muy sapeur pompier jaa ngeen jëf jàmbaar ngeen lool mais deme leen xel rek leen xel rek ji nga gendarme boobu dafa mujj ne ko waaw ma ne dafa ndànk siñ bi waaw dugal cooto bi dugal ma dugg toog mu ne ko àllan ah, la mu ne ko xam nga man dama am ulcère euh, kii diabète euh, euh, xaw ma cere cere laa doon <laughs> waa ji ne ah kii cas pire la nag kaa la ma ne ko ah, xamoo ci dara sax mu nekk ja di ko mocc ne ko defal ndànk waa ji mujj toog suuf mu ne ko waa taxawal defal ndànk kaay dugal cooto bi mu dugg mu ne ko demale yow sa oto bii kenn ubbil oto bi ubbil kaay ubbi oto bi mu ubbi fii ubbi fii mu ne ko lii lépp nen la mu ne ko waaw mu ne ko yow lii kenn du la jàpp dañuy xool bagage rek bu jaare yoon ñu bala nga dem a ca yéegal te nga góorgóorlu am masque mu mu dem indi sax naan ko kii sama masque la mask tet tet tet gendarme bi daal ku baaxee noonu mosuma ko gis topp ko rek ndeysaan parce que xam ne dafa tiit mu ne ko ba bul tiit mais nañu bañ a tiital nit ñi vingt et ñëpp di sëg surtout maire yi ñoo fi gën a tàppen nag waaw surtout maire bu dee xale yu góor yi moom yëgaluñ seen bopp lu géej gi riir moo tax moo mag Macky na leen ci boole xale yi jàmbaar lanu gis nga lii lii lañ la def loo lii am nga ko defal léeg-léeg nga daje ceeg boo xam ne ku ko takk corona billaahi da ngay baa nga crevé baa nga dee muy lu xasaw xunn mais policiers yi war nañ wax euh, loolu sax ne la waaw bàyyil bii sànnil bii defal nii boog defal nii tëjal ñi bi ah? mais keroog li ma neex ci gendarme bi dafa génne benn ne ko am bii oh dama ca jooya jooya soo ba mujj dugg sama heure doog a jotoon damaa dugg sama néeg di jooy xool waa ji ni mu tiitee ak gendarme bi ni mu koy delloosee ak li leen waa ji ragale mu mujj ko may masque ne ko del takk masque dégg nga bul def nii yow ci yoon nga nekkay jarul ngay def nii yow ko waa ci waa yéegari waa demal demal demal demal demal demal mu ne waa koy xam nga man sama masque yaa ngi masque yoo xam ni maara di taali dañ ko war a seet maire yi ñu ngi masque yoo xam ni seen baqate yeeg seen yuudi yeeg ak seen ndoxu bakkeen yi ak seen ñaq wi barke yàlla Omar buñ la ko fóonalee nga xam amuñ luñ jënde aussi itam man dinaa ñaan leen am na ñoo xam ne soxna si wallaahi amuñu lu ñu ndekkee bay jënd masque ah mais Macky Sall na ci xalaat amuñu lu ñu ndekkee bay jënd masque masque donte cent franc la <clears throat> bu ko xeeb su ñuy dem bay ramasse nit ne la da ngay fay trois mille ba tey baaxul. parce que kii uuti lu mu lekk nga fayee ko loo ko 3000 francs koy jëlee fekkee naa ci benn xale bu jigéen ci wetu daara ji masque bi mu yor doom jee ko xëcc mu wadd mu sëgg di ko for sigi nitu yoon ki gis ko ne ko maa tax nga gaawante di takk masque téye ko nit ñee ko cotiseel 3000 fayal ko ko pour lan Sénégal ñoo ko bokk nag Sénégal ñoo ko bokk Sénégal ñoo ko bokk nañu demee xel demee sago demee tey kuy jaay te sa heure wàcc jotul nooy wàccee gannaaw nit ñi nangu nañ ne vingt une ñu dem tëddi mais nangul nañ la ko kay alhamdulilah suñ la ko bañaloon lay métti waaye bëgg a obligé nañu duur nit ñi na nit ñi sol ay masque c'est pas normal c'est normal ñu fët leen c'est normal ñu xoj leen déet déet tey leen du noonu kilifa day tey kilifa day am sago man daal nii gendarme bi def saf nam yëkkati masque may ko baax na dañ yor ay masque rek suñ gisee koo xam ne euh, attacul masque ku mel ni man nag man moom ngeen sarax ma damay fatt waaw ngeen dal di koy rek jox masque ne ko bu heure bii bu ko del takk masque kuy ñibbi ngeen ne ko gaawal daw daw leen balaa heure bi euh, passé ñu ànd ak seen sago nag teylu mais ñi seen xaalis day wadd ñi seen leneen wadd ñi daw bàyyi seen i musuwaar loolu it baaxul couvre-feu bi daal nañ def ndànk rek parce que itam parce que itam def nii gis nga yaa ngi may gis gis nga Omar def nii taxaw la mucc taxaw la mucc de fii nag sa yaram wi nag dama lay laaj sa feebar bi ci biir bi ci sa bët yi la jaare ah ci sa gémmiñ gi la jaare ah sida ci gémmiñ lay jaar ci xar kanam lay jaar cancer fu muy jaar dañ eh, gëm yàlla nag boole ko ci ku takkal maske bi d'accord mais yàlla fu ko neex roof fu ko neex roof feebar fu ko neex roof feebar moom mooy Allahu fam koy def doo ko yëg bàyyi leen yàlla ak mbiram. sax nag ak mag boo xamante ni dawee na Petersen ba parcelle euh, est-ce que est-ce am na tey am na ci ñoo xamante ni seeni at dépassé na samay ati waajur est-ce que yërmande am na. gis nga daw yooyu sax moom mën nañ cee corona ba dee ci benn <laughs> mag du daw dañ bàyyi mag ñi ñu dox ndànk waaw xale yi dox ndànk dañoo daani woon seen doole mm-hmm. est-ce que xam nga yëg ma laajal la yow bàyyi nga ne agresseur yaa ngi eh, eh, dugg ci kër yi jàmbur yi yëg nga ko wala yëgoo ko yëg nga ne ñu ngi sàcc xarit nii ah! loolu président di cee war a xalaat dañ ci war a xalaat mi mag muy wët wëg wët wët wët waaye nag moom it lu leen dal baax na xam nga lu tax ba noot kër ba ne hayya ala salaati yàlla nee na ngeen ñëw julli dañoo lànk waaye ba président ne vingt une ca kër ya ñëpp waxandiku baax na ci c'est bien beau c'est bien beau waaw parce que ku lankal yàlla da nga nangul keneen manoo ci dara yàlla moom da koy nangu rek jàmm ne ñooy nga lànkal ko rek mu jël sa président mu sëfla ko jeex na ah waaw hayya ala ñu bari daw nañ ñibbi te buñ noddee fajar duñ julli billaahi duñ julli bi couvre-feu bi amagul nodd gi hayya ala salaati lu muy firi kaay leen julli si duñ dem waaye couvre-feu nu mu tudd vingt et une heures jot na ah daw ñibbi rek fu waay nekkoon daw huit huit huit huit te doo gis ko daw dem jàkka ja c'est bien ku ba yàlla yàlla nattu la jaamu leen yàlla bàyyi seen yii ngeen nekk bàyyi naxante yi bés bu ne ngeen suul ana sëriñ aatu ana maam ayaan caam hmm? ana ana ana ah loolu da nga bàyyi xel nañ yërëm nit ñi rek nañ bàyyi yooyu baleen ñu dox ndànk légèrement ñu dox ndànk dem nag waaw li ma lay wax na dëggal jaruma leen di naqari nag waaw bu leen metti mukk bu mu leen metti mukk dama leen di conseiller rek baax na ci yéen parce que yiw la leen di jural rek jàmm ji info point net mu bëgg a xibaar yu sell